alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah maa ngi leen di bokkal ci kër Ndiol. di leen bokkal ci kër Ndiol. maa ngi leen di bokkal ci kër Ndiol. محمد فبارك وسلم يبدو وكانوا كنت شرعتنا من هذا يبدو بيكونا يعني شريعتنا يبدو التي وضعها محمد صلى الله عليه وسلم يرجر شرفيه ويرجر شرفيه فجاه الدنيا الجمال الحمد لله فجاه فجاه الدنيا الجمال yow kenn gënu loo kàggat. dañoo ne ku jëkk ba doon mag. dañu naan ne ku jëkk ba doon mag. yàlla may ko mën dara. yàlla may ko mën dara. yaari wàllu tam di bind wala kenn ci ñoom. te yaari wàllu tam di bind wala kenn ci ñoom. te demul aljanna kooku it kenn gënu koo kàggat. te demul aljanna kooku it kenn gënu koo kàggat. yàlla wax na ne. farataal naa ci yéen xoor weeru koor. farataal naa ci yéen xoor weeru koor. gis nga ko farataale woon ci ñërëm dëkkam. li nga xam ne moom laa ko farataale woon te ñërëm dëkkoon. kon ku xoor. kon ku xoor. yéen nga ci mbooloo mu mag mu nga xam ne. yéen nga ci mbooloo mu mag mu nga xam ne. ñoo di malaaka yi. ñoo di malaaka yi. ak yeneen yi. àddina bépp julli. te ci yonent yàlla Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. te ci yonent yàlla Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. ak wàllu yi. ak wàllu yi. ak saa yi. ak saa yi may. dafa dina ko soo. dafa dina ko. parce que dafa dina ko soo. kenn nga ci ko. kenn ci jëloon yàlla. kenn ci jëloon yàlla. li tool bi béy ak li dindi yëpp di béy bokk la ak li asakay jëriñ ak li xajib di jëriñ ak li tudd yàlla di jëriñ yëpp dañuy jëriñ yooyu yëpp dañuy jëriñ boo di jaam bi bëgg nañ nga xam jiw bi ko fekkee borom bi ci yàlla donc képp ko xamul bu gën a fekkee yàlla yëngal ko ci dara. tey dund ak ñii nga boo dee wax noppi. tey dund ak ñii nga boo dee waxi noppi. yaa ngi dund ci safara nga nekk boo dee waxi noppi. yaa ngi dund ci safara nga fekk ko boo dee waxi noppi. kon nag ku gëm yàlla. kon nag ku gëm yàlla. julli ndax. wallaay du dëgg la. gis julli ndax yàlla la ko sab. woor ndax yàlla la ko sab. di woor it ndax yàlla la ko sab. di julli sa alal yi sa kem kattan ndax yàlla la ko sab. di jukkale sa alal ci sa képp kattan ndax yàlla la ko sab. di jaay yu ne la yàlla bële bu mu sab di julli la ko yàlla sab. soo tax a ci téye ba yàlla bële ca kattan yëpp dina ko yàlla sab. def loolu nag. ku def loolu nag. am nga jiw bi la fekkee yàlla bu mag bi. yow xam nga jiw bi la fekkee yàlla bu mag bi. ku tëkk ci yàlla rek nit yéen la. te ku tëkk ci yàlla. yow te nit yéen la. waaye ku tëkk ci yàlla yi tamit tamit yàq. waaye ku tëkk ci yàlla it. yow te nit yàq na. dañ ko xamee ci jiw yi gis ci jaar. dañ ko xamee. ci jiw yéen a gis ci àddina bii. قد يتلقى يا رسول دينك تبان دين غالي وتبان دين بلادي تدقوا في اسم مقدم يرجو به لب لب تدفعي ومن يشوف مكتبة كنت وكتبة بس وليه Çok senden olmaz. Çok da doğru. Senden çok bokları çok dokunuyor. Bunun civarında ne civarında? Yok yıldır. Yumurtaki sarayı. Ben zor zorlu. Sizin deflilerle bizi. Yum sarayı bayıko. Yum cümle çok bu kadar. Yum cümle çok bu kadar. Cümle çok bu kadar. te jubluwoo ci lim la ko digal. te dina ci jaamu yàlla dina ko teg yàlla. kon kat dina ci jaamu yàlla bu tax mu teg ci yàlla yàlla ku gëne suba. te fekk yow wóoroo. mar bi nga déggee it. da ngay yeneen lu ci moomol topp ndigalam yàlla xam nga ni ñu teral soorala ñu xaaye ko lépp xaaye ko xikmaam man ko bay moom ngir topp ci yëpp xam ngeen ne kooku loolu du taxaw sa koog yàlla yëngatu yi yëngatu ci julli fekkee dina nga xam ne que ni foog wala sa tëgg lamb. ñu ngi yëngatu yëngatu mu raw bi ñu yëngu ci julli te duñ ci xam mukk te koom yàlla. kon nag bàyyi naa ñu ngi ñëwee. jëf yëpp loo ciy def. jëf yëpp bëri sa loo ciy def. na tëj muy loo xam ne yàlla ko digle. fekk ndigalu yow ma jox la di jëf. nga fekk tam nga xam ne yow gën koy defar topp ndigalu yàlla moo tax nga di ko def. lu bon ku ko bàyyi. lu bon ku ko bàyyi. te bañ ci la xas rek tax. te bañ ñu xas la te moo tax nga bàyyi ko. te ñu koy joxoon yàlla. te it yow doo ci xam yàlla. dañ koy bàyyi di ci yàlla gërëm la ci ñu ko gërëm. dañ koy bàyyi yëpp yàlla gërëm la ko. lépp mooy sa borom. kon ñu def lépp lu ñu def lu yàlla kon man ñu def lépp lu ñu def na ngir yàlla lu ñu bëgg na yàlla rek tax. kuy xool lii muy wax ci moom day rëy na. ñun ñëpp fas yéene. bàyyi ñun ñëpp nañ fas sunna xoor sunna na nga xoor weeru koor weeru koor yi li ko dalee ci guddi koor gi li ko dalee ci guddi koor gi li ko guddi koor ga ba ca guddi koor ga ñëpp topp ndigalal yàlla asa yonentam gëm yàlla ku gëm yàlla ngir gëm yàlla ngir gëm yàlla ak ngir gëm lam jëfale ak ngir topp la yàlla tëddale. la ci yàlla tëddale. la ci yàlla tëddale. loolu moo la tax di woor. bu ne ko woor weeru koor. ngir gëm yàlla. ngir gëm yàlla. ak gëm ak doxalam. ak it nga gëm doxalam yàlla. yàlla ba xam nga la sa mbooloo di bakka yi gannaaw bi la weeru koor ubbee guddi bu jot bu dee ñaari rakka it gannaaw bi la ko jot te weer wi dee yàlla baxal nara mboolem li jiitu woon ci koy bakkat am na beneen riwaaya bu wax ne at la cay mujj si it kon nag pour ñëpp fal kon yàlla taxaw na lu dëkk taxaw na la it lu ubbi loolu nit mën na koo xam ne ci koor te te jaam bu nekk xam ngeen ne moo soxla na nga xam yàlla amul ji jaamu xamul dara l'anbiyaa wa mursaliina mm-hmm. ak yonent yi ak wali yi ak saalihiina yi ñoom ñëpp maam yàlla la ñuy ñaan ndax dëgg-dëgg xaq yàlla kenn jar mënu ko jox loo foog lu foog lu it yàlla daf lay baaxal rek mu ne gis na xabaar yooyu xalaat ci la. ngeen jëli taarix ba léegi. ci ngeen jëli taarix ba léegi. ñu gis ci taarix yooyu. suñ gis ci taarix yooyu. laaj ko luy njëriñ. laaj ko luy njëriñ. yàlla baaxal na ko. loolu rek lay tontu. ci daal. mu ne dëgg ci daal. ku wax ne amul luñ ko daal. ku wax ne man xamal luñ ko daal. lépp buñ la laajee yàlla baxal na ma loolu ngay sant. kon nag lépp luy maanaam dara am yàlla. ku nekk war nga saa farlu sa bopp. te li maanaam baxal yàlla bari na lool. kon nag baal yàlla it yaakaar nañ ne dana bari. baay bi leen wax ne yëpp ci yëpp bari na lool waaye seen sabab it bari na lool seen sabab bari na moo tax mu bari sabab yi wërsëg bari na ci àddina moo def ba xamee ci wërsëg keneen def na neneen xamante moom it wërsëg loolee tax wërsëg wàññi na dañu su fekkoon ne benn sabab rek la xam kon wërsëg bu baree ni mu baree jeex itam ay sababam bari na lool ku jeexee nii sabaram deexee moom keneen ci sababu dee yi bare looloo tax dee it na gañ baam yàlla it ay sababam bari na moo tax mu yaakaar ne dana bari cerno bàyyi na léegi ñu ngi ci weer koor yëngal yëngal yi docteur bu defee bu defee ñaar ci ñun. mu ne docteur bi solo bi ci secteur bu defee ñaar fukki minute. dama soppeeku it nag fii ci fan. fajar bi ñu xaw ci ci heure ak ci prix. fajar bi léegi mu ngi xaw ci six heures. ak fukki minute. fukki minute kuy xob mën ngaa xob ba six heures bu tegal juróomi minute. kooru mën koy sànnay lépp ginnaaw nga dëgg ci salaat yi. boo déggee nopp ji nag jàppul Cerno Jallo mooy njëkk a nobbi du teral kenn nag waaye bu balaa di teral nobbee kenn seen di dana Yàlla ñu yàlla xeet ñu ñëpp di lu ko dañu teral yaara bi Yàlla na yàlla wattu weeru koor yi ci ñun yaara bi waxtu bi ñu ngi jëm ci weeru koor bi. ñu ngi ko yàlla na yàlla waxtu ci weeru koor bi. boole ñu ci ñu doral ci weeru koor. boole ñu ci ñu doral ci weeru koor.